alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhaanahu wa taala seera namul benn bur buñ war a jaam bu moom noo ngi baalu àq lépp ñépp te di leen baal ak te ñaan buur bi subhaanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñun leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bi di bisub ñaar fukki fan ak juróom ñaar di kasdu rajabin muy bis bi nga xam ne ci la yonant bi sallallahu taala alayhi wa demoon wuy ji boroomam mu jox ko lam ko jox mu dellusiwaat di bis boo xam ne koroog bi yonante bi sallallahu bi suñu borom di woo bi sallallahu taala alayhi wa ak ci xeetu woowin woowee mbégte la woon ci rasulullahi sallallahu taala alayhi wa waaye xam ngeen ne bi sallallahu taala alayhi wa bi ko yàlla di woo yónni sayidina jibril mu indi alburaq mu war ci dem wuy ji boromam coow yi borom xam-xam yi bokk bari na ci ñii na jëmm ji rekk la ñii na roo képp la waaye buñ delloo ci mbindum cheikhul qadim min ha la amriya al israau l ilahu bihi bi ruuxi wal jismi laylan fa baata yasri wa jibrilu sara maahu fawqa alburaqi ila aqsa nihayat والأنبياء وكل مرسلين معا تعلموا منه آداب العبادات kon loolu moo lay xamee ne yonent bi ruugeeg yaram bi yëpp ñoo dem kon loolu ci guddig tey gii la woon suura al amin maa al amin fawqa lil asiyaayi suura amin al amin ju njëkk ji mooy jibril al amin ju ji mooy yonent bi al amin ju ñetteel bi mooy al amin maa al fawqal amin lil asiyaay kon xolo loolu xamal nañu nu yonent bi sallallahu alayhi wa bi miir a ñaan moom ruugeeg yaram beeg yépp ñoo dem donte sayyidatu Aïsa am na ci benn hadis bi naan maa fuqida jasadu nabi walakin asra bir uhi loolu donte sayyidatu Aïsa wax na loolu boo demee ci kutub borom xam yi am na nu ko nattalee waaye li gën a wér daal mooy yonent bi bi muy dem ruugi ak yaram bi yépp ñoo demoon mu tombeeg nag feeñu jamono Cheikh Mahamadul Fadil Mbakke ñoo ngi ci ndokkeel njabootug Cheikh Mahamadul Fadil gépp yàlla tombale ko tey ajuma jim mu gane woon jamono moom Cheikh Mahamadul Fadil mooy la waykat ba wax ne ajjuma jay Kazu Rajab la tekku jundullahi dar ko mbër may bàkku bisub koroog daam na bu kenn bu kenn nàmpal feeg jënt bi so bu ko kenn jox toqantal ba bis ba dellu see ko ngénte lamp na liir bii dana toog bay atte Cheikh Ibra ne woon liir bi dana toog bay atte kon loola tombet ajjuma joojee tey jiwaat di ajjuma loolu kon tawféexe suñu borom la subhanahu wa taala bokki na xutba bi tey ñu ngi ko jëmale ci julli wàccuwaay bi am ci lislaam te ñu gis ne guddi tey gi sërite bi yonante bi sallallahu taala wa sallam jëli woon ci rañaan gi moo di julli julli mboolem ibadaat yi muy ponk yépp julli moo ci gën a ëpp solo ahamiyatu arkaanul islam assalaat muy benn keno boo xam ne bu doonu mbaar la bu kene boobu daanoo mbaar mi mën naa daanu ma waral yonent bi salaa sallama koro bi mu demee ci sidratul muntaha ak màggaay baak la ci am lépp la ko yàlla jëkk jox mooy julli julli gu bi ko di jox bilaa waasatin amul lenn dox diggante ak boromam ma waral euh, ibnu abbas bi ñu ko laajee ndax yonente bi sallallahu alayhi wa gis na gis boromam mu ne raa muhammadun rabbahu maratayni maratan bi aynihi wa maratan bi qalbihi ne yonente bi gis na boromam ñaari yoon benn bi ci ay bëtam la benn bi ci ab xolam la kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis na boromam ko rabbi rañaani foofee nag ba mu koy jox julli amul ki dox ci digganteem ak moom mu jox ko julli jox ko juróom fukki julli waaye juróom fukki julli yooyu yàlla dogal mu di ko wàññilu ba mu des juróomi julli ku julli juróomi julli yi am yoolub juróom fukki julli kon nag war na ci ñun jullit yépp ci suñuy wax ak suñuy jëf ak suñuy doxalin ñu fonk julli bokk yi ab jullit day julli ab jullit day fonk julli léeg-léegi nga dem ci barab yoo xam ne waxtu julli day jot ñu noddu yow amoo benn ngante bu la julli nga ne maay bàyyi faalu nangam ca fekk na yow samaam joojee nga ne yaay baay faalam samaam ja boo demee ci ndénkaana yo ko sëñ tubaa dénk dana ko del julli ginnaaw yow doo bay doo bay faal bokkul ci njabootu Cheikh Ibrahima faal nga xam ne lim yor suñ borom da ko koo jagleel fardu taxsiis la yàlla moo ko jagleel moo ko ñoñam yow nga bokk ci askan woo xam ne laleen leen sëñ tubaa dénk mooy julli ak woor ak natt asaka bokk yi ku bokk ci askan woowu da ngay fonk julli waxuma sax bokk ci askan waaye ab julli dong dafa war a fonk julli fu waxtu julli jot dafa war a dem bàyyi lépp lu mu daan def doon julli ji borom penc mii ne dëpp na reer ngir ñàkk julli ngir soxna yu ñàkk julli mu juge ca jàkka ja na leen li tax julli ji woon ñuy nakk nakkal mu dem tuur reer ba moom borom penc mii kon ku bokk ci njaboot gi kenn waru la dàq julli waaye na ci penc mi na ci dëkk bi ñuy noddu ngay mën a dem jàkk ja amoo benn ngant bool tey dem jàkk ja nga bañ a julli ji képp ku koy def ca bokk ci borom penc mi yaa ngay def li la borom penc mi digalul léegi nag gars yi moom dañuy tànn seen yëfi bopp ak nun ko nun ko nun ko sentir nun ko gëmee te fekk na du loolu kon ab jullit day julli ab jullit day fonk julli bu nee ab jullit day julli nag li gën ci julli foo dégg nodd bàyyi lépp la nga doon def nga dem ca jàkk ja nga dem julli ji boo amul benn ngànt bu la tey dem julli ji allahu akbar mooy sa kër baay lakk na nga ne tekk ñu naa fu mu lakk ñu ne la sa nday ndey la lakke faaw nga dem gaaw dem fay ko balaa sa yaay faatu wala ku fa nekk di jullee ci biir kër yi tey ñëw ci jàkka ji di fi jullee laa salaata li jaaril masjid illa fil masjid yonent bi ne ku jullee sa kër ci amoon benn ngante amoo julli fekk nga dem dëkk ak jàkka kon jàkka ji ak jumaa yi bi ñu leen ñu tabax julli rek tax ñu def ko kon nañuy góorgóorlu ci julli ngir ñun ay julli di leen bokk yi léeg-léeg bi bi sam wax na ne nan moytandiku di doyee dil julli di doyee dil julli ak di ko bàyyi ci ñu ay jullit bokk na ci li mujje dénkaane mooy assalaatu wa malakat aymaanukum yonente bokk na ci li mujjee dénkaane mooy ñu fonk julli kon nañuy fonk julli ci ay waxtoom yonente bi biñ ko rañaalee bokk yi muy wàññul muy wàññul ba mu des juróom juróomi julli yooyu képp ku ko julli am nga yoolu juróom fukki julli kon julli makkaanam maanaam darajaam ci lislaam kenn xamul nu toll mooy li yàlla di njëkk a doomu aadama bu faatoo li yàlla di njëkk rek la ci nit ki mooy julli saa yu rafetee nam ware yàlla na ko bisimilah demal bu amul nam ware nag suñu borom soog di régler ay mbiram kon nan nanuy fonk julli bokk yi tey julli ji ci jàkka yi ca xam ne suñu borom subhanahu wa moo ñu ko digal yonent bi sansan waxaan na ne l'islam daa mel ne ak buum gun fas fas pas pas yooyu nag nee na bi ci njëkk a fecciku mooy sis mooy atte ñàkk atte ci normal te gis ngeen ku la xam ne jamono ji moom fa xam alhamdu nee na bi ci mujjee ko ci fas-fas yooyu nag mooy julli kon nan fonk nan ko fonk bu baax a baax kon bokk yi julli day defar bakkan di yéwénal mbir di dëgëral ay jukko di sorul nit ki ci réer ak ci alkane di taxit nit ki jaar ci ak njub bañ a jaar ci ab safaan inna salata tanha anil fahshai wal munkar suñ borom nee na julli day tere nit ki def lu ñaaw ak lu bon nag moom ay jullit bari na fi lool ay jullikat laa bëgg a wax bari na fi lool waaye xaqiqatul muslim dëgg-dëgg yombut kon nag mbokk yi nan deema doon ay jullit ba noppi doon dëgg-dëgg ay jullit nan ay jullikat ba noppi doon ay doon ay jullit yu dëggu loolu rek moo am solo kon inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala dikrullahi akbar wallahu yàlla ma tasnaun bokk na ci liy dëgëral liimaan mooy ñi fonk julli ci ay waxtoom ak ci ay suruutam dégg nga ak ci ay arkaanam ak ci ay waajibaatam ak di sonn ci xam ay sunnayam jullit bu ci nekk war ngaa jàng ba xam faratay julli sunnay julli nga ngëneenal julli liñ sib ci julli liy waajibaat yépp jullit bi da ko war a xam bari na ñoo xam ne buñ jullee ba noppi dañuy jël julli ga xappaat leen am na ñoo xam ne ni ginaar du cofam pépp la ni jullee allah sami allah rabbana salaamaaleykum loolu du julli ca léegi-léegi danga koy gis ñu koy def julli danga koy jox ak xam ni mu ware wa akmala rukua wa sujuuda wa qiyaama wal quud yëpp dafa war a mat sëkk waaye du julli mel ne ganaar guy cof ngir tayel li ngay def loo ci am yoon kon kenn ku nekk ci ñun la nga xam faratay julli ñaata la sunnay julli ñaata la ngëneelal julli ñaata la li sopp ci julli ñaata la sart julli nu mu mën a doon te bari na ci jullit yoo xam ne ñu ngi julli waaye xamuñu loolu kon jàngi ko jot na xam lu ko jot na ndax loolu daa bokk ci li defar julli gi li ci des nag mooy fi ñuy mujjantale mooy julli boo koy def da ngay teewal sa xol sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala ndax jaam bi fi muy gën a jege yàlla mooy fi mu su jootee moo tax ñu ne barab boobu boo rukkee na nga sàbbaar sa borom waaye boo su na nga ñaan boo su jotee ba wax subhaana rabbil ala barabu ñaanukaay la loo ñaan sumburam borom dana la ko defal soo ko mënee ci arab baax na boo ko mënee ci beneen langue baax na te ñuy digal njaboot gi ñuy julli amul njaboot waxtu julli jot nga dem beru fee julli ci doon wax leen jullim julli ji borom kër du ko def na ñuy digal njaboot gi ñuy julli wala ñuy ànd ak ñoom di ñëw ci jàkka yi di julli waaye na fee rek di beru di julli su ëllëgee yàlla dana la ko laaj wa'mur wastabir alayha laa nasaluka risqan nahnu narzaquka wal aqibatu lit taqwa yow su yow yow Muhammad na nga digal sa njaboot yu julli kon xale yi yi toll ci julli nañ leen di digal ñu julli yonent bi sans ne bo amee juróom-ñaari at ko digal muy julli bu amee fukki at ba bañee julli na ko caw kon nan fonk julli mbokk yi maa ngi dénk sama bopp di ko dénk julli nan ko fonk te bu ñuy jullit ñuy jëm ci jàkkee di julli ji jàkka yi defuñu ko ngir meeban wala nodd yi neex wala événement yi jàkka yi dañ koo def pour pour julli ji waaye déggum nodd toog sa kër bañ a julli ji ab julli du ko def rawatina na nga dend ak jàkka benn gumba ñoo ci yonent bi sansam ne ko ndax man war na maa wujji su ma amul ku ma wammet yonent bi sansam ne ko ndax yaa ngi dégg nodd gu mu ne ko ginaaw yaa ngi dégg nodd gi palamtukul ba dem ca jàkka ja dem julli ji kon nag ñun ñi nga xam ne gumbawun pattuñu làggiwun dara jotuñu ñu ne ci biir néeg yeeg kër yi julli jot ñaari te ñetti nit ci nekk ci jàkka yi di julli nan koy maytandiku tey dem ci jàkka yi di julli penc ma jumaa ja rafet naag mbaar ma rafet naag amul njariñ dañ ko fay def ngir julleeg jaamu yàlla nañuy dem jaamu ji yàlla rawatina ñi nga xam ne kenn ku ci nekk boo demee samaam dafa am lu mu la digal la ngeen nekkoon ba loola fekk leen te ngeen ne ca waaye topp sa bakkan topp sa nafsu maay bàyyi faalu diw maay bàyyi faalu sëñ diw maay bàyyi faalu sëñ diw te sëñ diw moom nga nga gis ko ca jàkka ja guddeeg bëccëg sëñ diw moom boo wëtikul wax la dëgg yow muy bàyyi faalam ne la dama jàpp jaamu ji yàlla da nga xam ne ëllëg jaamu ji rek yàlla rek moom sëñ tubaa nee na àjjana ju ànd ak jaamu yàlla amul ci ahmadu ko xam fu mu am dama nga wuti ko fa rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina waqna azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba ma zala ala llahi bi aziz تاوي لنا عمرنا شهر لنا بدنا وحب لنا رزق وتوفيق يا الله ودمر كل أعداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن معيسا لنا من شر سيعة لما شرفا وسر عني يا الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين آمين